sunu bindab tafsir al quran al azim comme ni ngeen ko xamee borom bi defaloon nañu tawfiq ñu nekk ci saaru mag wii di suuratu namli sunu borom ci tawfiqam ak ndimbalam démb ñu ngi nekkoon ci suuratu namli ba taxaw ci laaye juróom fukkeel ak juróom ñett ci tawfiqi sunu borom tey nu ngi tàmbalee ci laaye juróom fukkeel ak juróom ñeent ci suuratu naml ma fàttaliwaat sama bopp fàttali leen ni yaram ni ko borom bi subhanahu wa taala bindee dafay aajowoo lekk ak naan ak nuppalu ak nelaw su boobaa mu doog a mën a liqaliku mën a dund dund gu jag xol ab pàcc la ci yaram waaye moom xol dafa aajowoo dund gu wuuteeg lekk ak naan ak nuppalu ak nelaw xol lay tax mu dund mooy di ko fàttali yàlla ak di tudd yàlla ak di ko bàyyi xel ak di jàng alquran ak di ko tadabbur di ko seetantal alquran weer wu mag wi ñu nekk mooy weer wi ko suñu borom wàcce loolaa waraloon ñi gëm yàlla seeni buumi jokkoo ak alquran dafay dëgër këng ci weeru koor ndax weeru koor moom mooy shahrul quran kon bu nu suñu borom defalee tawfiq ñu mën a am bind boo xam ni dañ cay jéem di napp napp ci téeréem bii loola lu mat a sant suñu borom la subhanahu wa taala kon بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن, أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل أكثر بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لا يمد يويو mooy sunu dundab tey laaya yi day mbokk yi laaya yi lu gaaw la ci yëngal xol ku gëm yàlla rawatina bu bas bas basete ay aaya ngi yoo xam ni yu gaaw lool ci ñëddi ak ñëqi xol ki gëm yàlla rawatina su dee xol boo xam ni bas bas set na ci amul benn xol nag buy ñëw àllaaxira mucc lu dul ko indi xol bu mel ni boobee ndax suñu borom mu ni yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim bisa ngi ñëw boo xam ni doom du jariñ alal du jariñ askan du jariñ ndombay tànk waxi noom kenn rek la lenn di jariñ mooy ku gëm yàlla ku xolam set wecc ci wàcc lépp lu dul yàlla waaye jàpp yàlla yi kese aaya yii day borom bi def ko def lancé waale ci défi ngir wan doomu aadama yi kàttanuk sunu borom ndax am mbokk yi day bariwaa na ñoo xam ni ñi ngi ci bokkaale yàlla wala ñuy jiiñ ab nit wala ab mbindeef di ko jox cërëb sunu borom waaye ñooña dañoo settantalut waaye bu ñu settantaloon ki ñuy jël di ko dendaleeg sunu borom kooku suturaan lañ bëgg xaaw yi gis nga képp koo xam ni ñi ngi koy jël di ko dendaleeg sunu borom wala ñu koy jiiñ benn melokaan ci melokaani sunu borom kooka nañu yëg ni ñi ngi xaaw yi suturaan te yëguñu ko ndax bokk yi borom bi subhanahu wa taala li nga xam ne mooy ay melokaanam mbubb mu yëmbax la ci képp ko sol ku dul moom melokaanam yi ak turam yi ay melokaan laa ci tur yoo xam ni képp ko sol mu nekk mbub mu yëmbax ci yow moo tax yàlla ni mu màggee ni mu kawee ni mu soree léppi ayiba ki sikka ki manqué manqué ni mu mu bëggee ni mu yërëmee ni mu amee dooleeg ni mu amee kattan ni mu neexee xéewal ak ni mu méttee mbugal loolu ku gëm yàlla ku koy xalaat dafay dolli sa xol ngëm liyazdaada alladina wa yazdaada alladina amanu imaana ñi gëmoon yàlla seen ngëm gën a dolleeku walladina ihtadaw zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum ñi gindeeku woon yàlla gën leen a gindi yàlla suñu borom booleen ci ñoom suñu borom bi muy nettalee qissab saalex ba mu yegg mu nettali ñu qissab lóot ba mu yegg suñu borom mu ni qul alhamdulillah kon nag waxal ni maa ngi sant suñu borom qul waxal ni alhamdulillah maa ngi sant yàlla laay ji foog naa ci lañ taxawoon démb maa ngi sant yàlla yàlla mi la baaxe may la ay way jur yoo xam ne dañ laa jur ci lislaam nga jur nekk ci lislaam qul alhamdulillah santal yàlla ndax am na koo xam ne yàlla da koo bàyyeeg boppam mu juddoo ci ay yéefar foog nekk yéefar dee tàbbi sama borom bi subhanahu wa taala mi la baaxe ba jamono bi nga toll yaa ngi lekk muy rees am koo xam ni benn kaasab meew rek boo ko bëggoon xol tey tukkal àddina bi qul alhamdulillah suñu borom mu ni santal sa borom am na waajoo xam ni mi ngi ci digg dooleem ci bokkaale yàlla ak njabar ak buxaaba ci amul benn sikk sàkk ci loolu ku ca dee dem sawara yàlla musal la ca qul alhamdulillah sunu borom ni yi nga yëg ni yëpp yàlla moo ko def ci ay xéewal sant ko ca te boo paree nga wax wa salaamun jàmm yàlla ala ibadihi alladina stafa yàlla na nekk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla tànn ñi yàlla tànn bu malaaka yi jàllee al anbiyaau wa siddiquuna wa shuhadaau wa saalixuun malaaka yi yonent yàlla yi siddiquun yi shahada yi muy martir yi saalixuun yi nag doog a ñëw waxoon naa leen démb ni al imaamul bayhaqi dafa wax fiq bu am solo ci bunt bii mu ni ñaanal ma ñaanal ma da ngay dégg la nit ñaanal ma soo demee bu ma fàtte ci ñaan mu ni ñaanal ma ñaanal ma matu ko soo bëggee ak mille milliards yi doomu aadama yi ni ci àddina bi yépp bis bu ne ñu ñaanal la juróomi yoon gën jàggat muy da ngay fexe bokk ci jaamu yàlla yu baax yi boo ne assalaamu aleyna wa ala ibadillahi salihin bi ngay taaya mooy yàlla na jàmmi yàlla nekk ci ñun nekkaale ci mboolem ñi gëm yàlla mu ni su ko waxee yow ñaanal nga ñi ci kaw suuf ñépp kon ku ko wax ñaanalaa leen na la lan mooy condition charte bi tax nga mën a am ñaan gi mooy an takuna min ibadillahi salihin sunu borom mu ni allah maa ngi laajte ni ndax yàlla xayrun moo gën wala xayrun moo gën ci yéen xayrun moo gën a baax ci yéen amma yushrikuuna wala ñi ngeen di bokkaale ak yàlla koo xam ni boo yaakaaree moom ngay ñaan boo tiitee moom ngay làqu ci moom boo xitilik allahu akbar benn bis xusayn baayu imran ibn xusayn dafa ñëw ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam yonent bi ko xusayn yow ñaata yàlla ngay jaamu mu ne ko man am naa juróom benn yàlla juróom yàlla ci suuf benn yàlla ca kaw mu ne ko xusayn soo xiifee bëgg a lekk koy ñaan mu ne ko xanaa yàlla ji ci kaw boo amee ay problème bëgg ku la ko teggal koy ñaan mu ni ko yàlla ji ci kaw mu ni ko su fekkente da ngaa feebar bëgg ku la faj koy ñaan mu ni ko yàlla ji ci kaw mu ni ko yàlla joo xam ni soxla soo am moom nga koy diis kay balaa càgg nga bàyyi ñii te jaamu ko gis nga nit lu mu dofe dofe dofe boo ko waxee waxi nit bu ko yàlla nammee gindi mu gindee Xuseyn toog ba mu yàgg mu ne ah yonent bi moo ne wax nga dëgg de loolu mooy sababu mu dugg ci lislaam ah yàlla joo xam ni saa boo jaaxlee moom moo lay dimbali kooku kenn du ko dendale ak kenn waaye amul tamit morom moo tax Amr ibn Jamuh muy saxaabu baax boobu radiallahu anhu xaritu bàyyi jaabir ba Amr ibn Hiram nga xam ne xaritoo moo leen boole ba ñoom ñaar dañ leen boole suul ci genn kàmb Amr ibn Jamuh ak bàyyi jaabir dañ leen a boole suul ci genn kàmb ndax xaritoo Amr ibn Jamuh daa am genn yàlla ci biir kër gi di ko jaamu yàlla lay xërëm yàlla def ay doomam daal di tuub dugg ci lislaam te yëggu ko comme paa yi dañuy teel a tëdd moom bu timis jotee rek reer na tëdd gone yi daal di ñëw ba mat yàlla ji mu daanu ñu watat ko yóbbu ko ba ca sën ba sànni ko mu yeewu xëy oon gisul yàlla ji mu mer topp réed wi topp réed wi ba fekk ko ñu sànni ko ca sën mu mer wax ay wax bu ma xamoon ku la def lii tey ma def ko wax a wax ba yeggal xalaataat yàlla ji indi sampaat ci biir kër gi te ñaareelu guddi ba mu tëddaat xale yi ñëwaat jàppaat ab sagar yeew ca yàlla ja watat ba ca sën ba sànni ko fa mu yeewuwaat gisut yàlla ji mer lool mer mu ëpp mu démb ma mu demaat ba ca sën ba fekk ko fa daal di koy indi waaye ca ñetteelu fan ba nag ba ko xale ya sànnee ca sën ba xaj ba daal di ñëw jonkan ca kawam daf fay dem àll Amr ibn Jamuh daal di ñëw daal di xool xool xool xool mu ni arabun yabulu soxlabaanu bi rasihi yàlla joo xamee day xullee ba njàppaan ab njàppaan wala xaj ñëw di puug ci kawam mu ni ji yàlla dëgg dëgg nag moom laxat xibta yow de perte nga xaaral ma dem seet yàlla Muhammad ji waaye bii moom dootuma ko jaamoon ci gis nga maanaam lépp loo xam ne dañ koy jiñ ak yàlla rek torotaange mooy feeñ bu yàggee gis nga moo tax sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ni allah ndax yàlla xayrun moo gën amma yushrik wala ñi ngeen koy bokkaale koo xam ne addiya la lay laaj koo xamante ni da ngay liggéey di ko jox moom ay loxo moom du laal bopp du laal machine ma nga nooy népp ah koo xamante ni moom daanaka moom moom daal moom daal dee ko jox te di ko upp di ko fayali facture am di ko solal carburant ci war waayam ah di ko yónnee crédit nag te it nag day yaa koy seeti nag waaye du la seet si mukk seetlu leen loolu yaa koy seeti bis bu nekk saa boo ko nammee yaa koy seeti moom du la namm ba seet la mbaa bu la nammee ba seet la daa jël si li fi ne islam doxewut noonu déet islam wengeewut noonu déet yéen yàlla danaan seeti nit ñi ñu di ko seet mu di leen jox ñu koy jox mu di leen dimbale ñu koy dimbali waaye képp ku ñu jël di ko jiiñ lenn ci cëri yàlla yi saa saa sax nga gis ku ñu wax yow yaa yàlla defe naa fi publiquement gis ngeen fi télé kuy foqal sëriñ bi ab ba baaraami sëriñ ba mu yàgg mu ne ko yow nit ñaa ngi wax sax naan yow moom yaa yàlla am na sax ñuy wax ci nit ñi naan yaa yàlla xam nga lu mel noonu ah am na jamono joo xam ne boo ko fa waxee woon ci jamono ju mel ni jamono yoo Omar ibn Xattaab wala ju ni mel yow moom keroog lañ lay gasal bàmmeel bi sab keroog kon yàlla ak niñ koy bokkaaleel kan moo ci gën laa sokka yàlla moo gën te gën gi dafa nekk foofu tey tax nag deesul yaay sax ñuy gam-gam le ñii ak yàlla subhanahu wa taala sunu borom nag tàmbale dañu limal ay mbir yoo xam dafay wane kàttanam ndax xam xam ngeen ni mbokk yi yii bunt dafa bokk ci bunt yi rokkas ngëm yàlla ci xol ndax nit ki su fekkente ni xam na kàttan sunu borom ak fi mu toll ni mu ko bëggee ni mu ko yërëmee ni mu amee kàttan loolu dafay gën a dolli ngëmam suñu borom ni am man xalaqa alsamawati wal arda am man ana kan mooy ki nga xam ne wala ndax ki nga xam ni xalaqa alsamawati moo sàkk asamaan yii ngeen di gis wal arda ak suuf si ngeen di seen asamaan ministre la xam fi mu ne ban matière la ko yàlla defaree ba tax ba mu fi nekkee ba léegi mënut xomaat mboolem dënd bu waay defar faw mu ami koñ ami oto ami jën bu dee ca mbaar ma yu ko téye rafaa alsamaa bila amad wa basata al arda ala maid fa jamad wa xalaqa alxalqa fa axsaahum adada wa qassama alrizqa wa lam yansa axada sunu borom rafaa alsamaa moo yëkkati asamaan bi gayri amad te dara téyewu wa basata al arda mu lal suuf si ala maa in ci ndox fa jamada mu ni dégg ni galas du farma ah wa xalaqa al xalqa mu bind bindéef yépp fa axsaahum adadan mu lim leen xàmmee leen mënoo nuróog sa morom ba tax ñu jaawale leen wa qassama risqa moo séddale wërsëg bi nag walam yansa ahadan te fàttiwu kenn gis nga tiwo bi jóge ci suñu borom tiwo bi tudd tiwo bu wërsëg jóge ci suñu borom ñëpp seen wàll ca lay jaar am na koo xam ne wàllam buy ñëw ay milliards lay doon am koo xam ne wàllam buy ñëw ay millions lay doon am koo xam ne wàllam buy ñëw ay ñaar dërëm ñaar dërëm am koo xam ne ay junni junni lay doon waa ji yàlla la bind ci moom i ñaar dërëm ñaar dërëm ba keroog muy mat mu yàkkamtee yàkkamti ba bëgg yàlla defal ko ko ay junni junni su doon tombeeg dogal suñu borom suñu borom da ko koy sotti muy ay junni junni su ko defee fanam jeex mu dee lu am solo boog lu mat a bàyyi xel gis nga léegi da ngay bëgg yàlla sotti nga la wërsëg bi te wërsëg bi bu sottee koondoo te wërte sottee koondoo day gàttal sa fan ndax yàlla bu bindoon ci yow di nga am vingt millions doo ko dee yàlla di la ko jox ay juróom-ñaar téeméer ak i juróomi téeméer yu demee noonu yow nga bëgg amandoo million suñu borom bindeewu ko noonu léegi bu la joxandoo million day fekk ne waroon ngaa dund ba deux mille trente te budget bi la war a dundal ba deux mille trente yow wàññi nga ko parce que yaa bëgg yàlla joxandoo la ko su ko defee deux mille bi rek ca ngay dee dix ans yi nga ñàkk li ko waral moom mooy yaa ñotti wërsëg yi mu ñëw moo tax nit ki na doyloo li ko yàlla sédd loola doy na sëkk ca moom yàlla mu sàkk asamaan mu mel ni mu mel rëy lool yaatu lool kawe tey nag tey nag gis nga cooy li muy bari bari bari samaama daa xoon kii ak moo dekkal néew baat moo nangam nangam waaye samaama moom asamaan doo ko dégg mukk parce que dañoo xam ne ku ko wax kàcc gis nga nit ñi defuñu de te xoolal samaama moom suuf si xam nga da nga koy dégg léeg-léeg parce que suuf si ci la ñuy jot bi waaye la ñuy dégg ca kaw moom nga xamante ni kenn mënu koo laal samaama moom asamaan si doo ko dégg mukk da nga dégg sa suufas maam sa suufas maam suufas diw suufas buur parce que dafa jege dañ cee teg loxo te moo ne innal arda lillah suuf si yàlla moo ko moom waaye kenn moom waaye asamaan si doo dégg asamaan si bàyyi diw ji déedéet parce que ku ko wax rek xam ngay da ngay kàcc sunu borom mu ne man mi sàkk asamaan mu nekk juróom-ñaari asamaan asamaan ak morom ma diggante ba doxu juróomi téeméeri at la diggante asamaan ak morom ma doxu juróomi téeméeri at fois sept suñu borom subhanahu wa taala arasam nekk ca kaw suñu borom tiim aras mbokk yi loolu kawe na de xoolal fii ñu nekk ñun ba ca kaw ñaata téeméeri kilomètre la diggante asamaan ak morom a dox juróomi téeméeri kilomètre nga multiplier par sept muy juróom-ñaari asamaan nga ñoqaliwaat jëmaat kaw ñu ni fa la aras nekk nga gën a ñoqali jëm kaw ñu ni suñu borom a ko tiim ba pare wa huwa qarib da laa jege lool ba boo koy ñaan mu lay dégg samia day dégg qarib dafa jege zu qudratin bahira kii mooy borom kattan gu màgg gi moom sunu borom amal xalaqa samawaat ndax ki nga xamante ni moom moo sàkk asamaan wala kan mooy ki sàkk asamaani juróom-ñaar yi wal arda mu sàkk suuf wal arda suuf si sunu borom mu ni parasnaaha nun yàlla noo ko lal ba mu ni nay fa niamal maahiduuna neex a tëdd neex a joggi wasamaa asamaan sële banaynaaha ñun yàlla ñoo ko tabax bi aydin ci kattan wa inna la muusixuuna ñoo ko tàllal mu ni ñeneen suuf sunu borom def fi mu nekk jàng fi ak joor fi ak ban fi ak xur fi ak ila axiri suuf see kawe lool ba camion yi di ko tibbi di jaay suuf see noox lool ba ko fa tàbbi dee suuf sii baax lool suuf sii bon lool sunu borom bi mu nammee sàkk baay aadama dafa wax jibril ni ko demal kaw suuf nga tibbal ma tibbal suuf andil ma ko jibril ñëw dem ca fa suuf su ñuul sa dank dank dem ca suuf su weex sa dank dank dem ca suuf su bula moo leen suuf yi am bu nekk mu dank dank ba suuf yi jeex mu jël dank yooyu yëpp boole ko def ko dank yëpp ko sunu borom li may wax xadis la bu wér yonent yàlla bi nee na sunu borom daal di jël dank ba ca la sàkk baay aadama moo nag mu ni doomu aadama yi bi ñu juddoo dañoo mel ni suuf si doomu aadama yi bi ñu juddoo dañoo mel ni suuf si gis nga ni si waa joo xam ni dafa weex tàll tàll tàll comme suuf si nga gis ku ñuul kuk kuk comme suuf si nga gis koo xam ni dafa bon ay jikko bon ay jikko nu suuf su bon sa munoo faa bay mu sax nga gis suuf soo xam ni dafa leweta leweta leweta lewet ni joor ga nga gis suuf soo xam dafa soxora soxor ni seen suuf si nekk ci ay dex tey dund nga xam ni booy jokki rek mu lay wan kon melokaani suuf yi moo tax sunu borom ne minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra borom xam-xam yi dem nañ ba turbe ne gis nga matière yi composé doomu aadama mook matière yi composé suuf benn lañ loolu nag daanaka du woon xam-xam bu ñuy yéemu après alxuraan parce que alxuraan wax na koo pare comme ci lañ leen bind doomu aadama bu duggaatee ci suuf or ma jiñ ko gën a defal mooy wàcc suuf dugal ci moo tax gis nga suuf sii suuf sii doomu aadama bu ciy joggi war naa bàyyi xel baax a baax abu dara la wax yab na aadam ta'il arda bi qadamayka mahlan mahma qaala az-zamaanu fa innaka masirun taxta al ard eey doomu aadama booy dox mu ni joggil sa tànk yi ndànk sa fan wi lu mu gudd gudd gudd gudd gudd yàgg yàgg ci biir suuf si lan lay làq allahu akbar suuf yàlla mu ni alam naj'al al arda kifaatan ahyaan wa amwaatan xanaa du ñun yàlla ñoo jël suuf si def ko mu nekk yaay yaay joo xam ne day boot di uuf ahyaan day boot ñiy dund ci kawam ca ndiggam la wa amwaatan uuf ña nga xamante ni ñoo dee ci biiram gis nga ñun ñuy dund suuf a ngi nii moo ñu bokk ña dee suuf moo leen ëmb fi ne ña nga ca biir suuf sii teraanga joo mën a am ci kaw suuf lun la defal lu dul wàqi suul la ca rek boo dee xot dañ sa orma moo tax doomu aadama buy bàyyi xel lu mel noonu ah nga xam ne sunu borom dafay digal nit ki naan ko booy dox ci kaw suuf defal ndànk la tamshi fi l ardi marahan innaka lan taxriqa al arda wa lan tabluga al jibala tuula mënoo xotti suuf si mënoo njool ba tolloog montagne yi suuf kéemtaani suñu borom la yàlla jël ko def ko ci kaw ndox samp ci ay montagne ba mu dëgër wal jibala arsaha yàlla mu ne ma dé dëjee ko nag ay ay semel yu ñuy tuddee ay montagne mu dëgër këcc ndeysaan yàlla jekku la téeméeri yoon ak ñaar fukk nag ndax xam naa ni bu ñu woon ndox bàyyeekul rek mbaa mu ni montagne bàyyeekul rek suuf day des sunu borom ni amintum man fi samaai an yaxsiba bikum al arda fa ida hiya tamur ndax am ngeen confiance ci ne yàlla ni mënu toog ba mu yàgg rek mu ŋaayiloo suuf suuf ŋaayee ko rek ngeen ni pëtëx ci biir da ngeen yaakaar ne mënta nekk wa hënka ya rabbana a amintum man fi samaai an yursila alaykum xaasiba xotteeku ku bàyyi ko ci asamaan ni dellu suñu kaw ñu faatu nag wa hënkay mu ni bu baax fa sa taalamuuna kayfa naji di ngeen xam kuy yàlla gis nga suuf kéemtaanu suñu borom la subhanahu wa taala doomu aadama ju nekk nag na bàyyi xel ni mi ngi joggi ci kaw suuf suuf dana wax la nga doon def ëllëg yawma idin tuhadditu axbaaraha suuf dana ni yàlla diw diw diw diw moo def nangam nangam nga ni lu xew mu ni bi anna rabbaka aw xaalaha yàlla moo ko jox joojee ndigal gis nga suuf daa dëppoog saw yaram ba bu la dara doon metti nii tey sallallahu alayhi wa sallam day jël suuf si mu def nii mu teg ci suuf si mu ni turbatu ardina sunu suuf suufas yàlla sii bi riqi baadina ci tafliti sunu kenn ci ñun yashfi saqimana mooy faj ki ñuy feebar bi idnillah ni ko ca dab wallahi rabbil alamina lii des koo essayé marratin wa karratin wa tikraaran da nga koy def ci tawat yàlla subhanahu wa taala saafara ko ca saasa même bu doon méttit sax mën ngaa yëg méttit o dañ ca saasa turbatu ardina bi riqi baadina yashfi saqimana bi idnillah daal di laal ci suuf si rek wërale ko ci kaw góom bi mbaa ci neewi neewi mbaa ci taab bi jarul jënd benn médicament moo tax sallallahu alayhi wa sallam daan oyof lool léeg-léeg mu jël jarab suuf jël dàll ya teg ca tëdd ca ngir tawaadoo ngir wàcce boppam acamat di bàyyi xel suuf ki sàkk suuf kooku mooy yàlla suufas bàyyi diw si mu ni déedéet inna al arda lillah parce que lee xam ni moom moo ko am na ko ko moomoon nga doog a ñëw te léegi nga dee ñu miraas ko sédd ko keneen kon sédd bi yàlla sunu borom ni wa anzala lakum yàlla moo wàcce min as-samaa'i ci asamaan maan lii di tàbbi tey allahu akbar yaakaar naa bi ñu tàmbalee sunu bind bi gis ngeen asamaan ci suuf kan moo wax sunu borom ni ko tawal kenn kan moo xam ñaata litre ndox mooy wadd kenn day tawal waa fii ba ñu doyal nga génn dem fee fekk xaajut bay taw tey ci suba rek dal na ma fii laa xëyee bàyyiwu ma fi taw ma dem ba tolloog kër njaayloo gis mu taw ba tari bi taa te fii amul taw ban kattan ban puissance mooy téye bën bën yi nekk fii bàyyi bën bën yi nekk fële muy wadd ay waaye bu nit ñi jugoon ku am nguur ba sax nguur jay la ba ngay da ngaa bëgg a tooyal suuf see yaay day nga xam ni suuf si li koy tooyal tanzilun min rabbil alamin fële lay wàccee ca kaw gis nga nit ñi mën nañoo def ay pexe ki bër-bër mbayam noor ak mbayam nawet waaye xoolal rek yàlla subhanahu wa taala dañoo yërëma yërëma yërëm ba tey boo bayoon ci ndoxum asamaan si mu ni boo wàññi fukki sabaar mu ni fukkeel ba jox ko yàlla juróom-ñeent yi jëlal fukkeel ba joxal yàlla waaye gis nga li nga xam ne yaa wut sa ndoxam bopp pour l'islam wan ne gëm naa ni sonn nga dañ naan nis rubul ushri wala boog nisful ushri da ngay jël fukkeel ba nga xaaj ko ci digg bu doon fukki sabaar ñu ne benn sabaar ba fukkeel ba xaajaat ko ci digg bi ndax da nga caa sonn kon loolu bokkul ak li nga xam mooy wàccee ci asamaan si te it nag ndox mi wàccee ci asamaan si meneen ndox la gis nga dafa ànd ak kéemtaani sunu borom yoo xam ni bu wàccee ci mel ni ci mbayam noor bi da koy yàq parce que acide bi mu àndal moo tax nag bu wàccee ci baw baykat yi naanaa yi nga gis ñu jëlaat ndox mu teen mii sott ca kaw kon wa anzala lakum sunu borom moo wàcce min as-samaa'i ci asamaan maa an ndox fa ambatna bihi ñu daal di saxal xadaaiqa ay jardin ay tool yoo xam ni zaata bahjatin dafa rafet lool àll bi naat verte nga xam ni fii loxol dul qudratil baahira moo fi jaar muy sunu borom sunu borom mu ni maa kaana lakum mënu leen woon a am capacité mukk wala doole wala pexe an tumbitu mën a saxal sajaraha garabi suuf yi mënu leen def benn pexe ba saxal garabi suuf yi ku wàcc asamaan ndox xanaa yow sunu borom ku saxal tool yi xanaa yow sunu borom ku lëtëfal tool yi xanaa yow sunu borom ah kan moo meññal garab yi xanaa yow sunu borom kon nag sunu borom mu ni a ilahum ma allah ndax yaakaar ngeen ni am na kenn koo xam ne vraiment sérieux nit ndax sérieux nit yegg na ci jël kenn di ko jox lenn ci cëri yàlla yi subhanahu wa taala a ilahum ma allah ndax sérieux dana nangu nga jàpp kenn di ko dendale ak yàlla déedéet yaa rabbana ñi koy def de mu ni balukum ñoom day qawmun aw nit lañ woo xam ni yaadiluuna dañoo jéng dañoo jéng dañoo juum ndax ki def lii kooku rek lañ war a jaamu walis yàlla walis walis keneen a ilahu ma allah ndax xel mu sell ndax nit ku sérieux dana nangu ki def lii lépp ñu bàyyi ko fi di guutal morom ak ngend su baramu ni déedéet kon balhum qawmu yaadiluun mooy yéen di ay nit ngeen yoo xam ne yu jéng ngeen sunu borom mu ni am man jaala al arda wala boog kan moo def suuf si qaraaran mu ni dégg déggaaral nii mu mel ci weer yi paase yéen a ngi dégg am réew mu ñuy tuddee ay suuf sa baj baji fa ba def fa loo xam ni xaw tuuti kon ñu ni histoire taarix xamagut tremblement de terre bu mel noona ci doomu aadama yu toll noona yu mu faat kan moo yëngal suuf sa xanaa rabbana mooy sunu borom ñooñu lan lañ ko def xanaa coobeeram coobareem moom sunu borom ak nammeelam noonee leen sunu borom def mën nañu ko def ñun ñii kon ki def suuf si mu ni dégg déggaaral yëngatuwut waa ji mën a ñëw sañ a tabax ca kaw nag ba léegi ju xeeb tabaxum kaw di tabax jëm suuf nag léegi léegi da ngay dugg biir Dakar gis ngandam kàmb koo xam ni yow doo ko ñeme sa ko yërlu ndeke dañ ko bëgg a tabax kër ak suuf doo ko ñoqali jëm kër ak kaw wallahi ki téye suuf si ba mu ni ñu téyeel suñu tabax yii waroon nañ koo téyeel diineem jii te jaamu ko fonk ko sunu borom mu ni wajaala la wajaala moo def xilaalaha ci diggante suuf yi anhaaran ay dex wajaala laha moo def ci suuf si rawaasiya ay montagne wa jaala moo def bayna al baxrayn diggante ñaari géej yi xaajizan kiiraay ba duñ jaxasoo sunu borom mu ni amman jaala al arda qaraara kan moo def suuf si mu nekk lu dal lool yëngatuwut baj-bajiwut daane luñu màbbalu wa jaala xilaalaha anhaara sunu borom def ay sewnde ci diggante yi nga dégg ñu naan kii mooy lag de guerre ak gii mooy dex ak waalo geeg gii mooy dex ak nangam geeg dex yi commencé bari ngir yàlla amaat yeneen mbindeef yi ñu tuddee ñoom jësit ñoom bar yëpp di dund ca biir sunu borom ni lii maa ko def ci kaw suuf si waaye defaale ay ay ay géej timit nag wa jaala laha rawaasiya sunu borom jël ay montagne samp ko ci suuf si gis nga àddina bi yëpp dafa fees ak ay montagne addina bi yëpp dafa fees ak ay montagne montagne bi yàlla njëkk a samp ci kaw suuf mooy jabalu abi qubays te mu nekk mag jabalu abi qubays muy montagne booba nga xam ne ñu tudd siira yonent sa dañ koy faral tuddaale mooy montagne bi sunu borom njëkk a samp ci kaw suuf sunu borom nag samp yeneen montagne yi nga xam ne moo ci des yëpp mu def ko muy dëgëral suuf si sunu borom ni wa jaala moo def bayna al baxrayn ci diggante ñaari géej yi xaajizan kiiraay huwa alladi maraja al baxrayn hada asbun furaatun saa'iqun sharaabu wa hada milxun ujaajun wa jaala baynahuma barzaqan wa xijran mahjuura aaya jooju gisoon ngeen ko ci suratul furqaan sunu borom boo demee ba ci biir ndox tey yent yàlla bi nee na ci xadis bu wér mi ngi ci musnadu imam ahmad géej gi saa bu yeewoo dafay ñoddee ko ay yoon ni sunu borom teeg maa bàyyi ma faagaagal mooykati yàlla doomu aadama yi sunu borom ni ko déedéet mu daal tooga bis bu nekk dana ko def benn yoon sunu borom boo demee ba ci biir géej gi dafa def ndox moo xam ni dafa neex lool ni ndoxam Evian ndox mee wet xat ni ndoxal xorom ñoom ñaar ñu taqaloo dendee te gisoo barrage bu fa ne boo asee ci mii naan mu neex lool nga as ca mee mu xat xorom nga jaxase leen jaxasewaat bu nekk dellu palaasam xanaa yéen jàngkati français yi tubaab bi ngeen waxoon moo tuub ci loolu lu mu tuddati costaud commandant costaud bi mu ko gisee nag xam na ni moo tax alhamdulilah commandant costaud turbi na xam-xam boobee waaye yàlla dimbali na ko gindee ko na dugg ci lislaam daa dugg ba ci biir géej gi mu dem ba mar aajowoom ndox laal fi ak naan safut xorom affaire bi jaaxal ko trop lu tax géej gi saf xorom te ni safut xorom mu asaat naan safut xorom mu asaat naan safut xorom mu déplacé wu tuuti naan affaire bi saf xorom mu def ay gëstum ba gis ni ndekete côté bii safut xorom côté bee saf xorom te ñoom ñaar ñi ngi taqaloo dara baarewu leen mu ñëw ak xam-xamam boo xamante ni jàpp na ni fi mu nekk nii bu dikkee moom la ñu war a fal buur nag ndax xam na lu kenn xamul nekkate booba commandant costaud am na beneen commandant bu tudd Muhammad boo xam ni yàlla wax yoon na ko ca septième siècle bi mu dikkee ñooñ alquran wax ko ko day déedéet Muhammad sàmmkat bi ne ca àll ba ca xam ne moom jegewul sax géej fa ndax mës naa yéeg gaal sax la ñuy wax kooku nu mën a xamee lii ki ko ko xamal mooy yàlla subhanahu wa taala nabbaani al alimul xabir kooku yàlla dimbale ko loolu moo dox mu dugg tuub dugg ci lislaam suñu borom mu ni moo def bayna al bahrayni xaajiza ñaari géej yi yàlla def ci benn kiiraay allahu akbar mbokk yi lii kéemaan dëgg la bii we xatt xorom bee saf sàppat na ndox di saf waaye amu ci benn boo xam ne ma ngay jaxasoog moroma loolu mooy xudra loolu mooy kàttan suñu borom mu ni waaw ci def lii kan moo lal suuf si ba mel ni mu mel ñiñ koy ji ñëpp ak ñi ñuy yaakaar dañuy arrière dañuy randu ca gannaaw kan mooy ki nga xam ni moo dogale géej yeeg dex yi yàlla rek ndax la lay wan ni moom rek la léeg-léeg day jekki-jekki rek fàqal géej gi fàqal géej gi mu ñëw di di nangu ay kër ba léegi yegg na ci nangu ay kër bay nangu ay néew yaakaar naa dégg ngeen xabaar yi paase fii ci tëngéej fële ci caaro géej gu fàq goo xam dafa ñëw ba sulliwaale ay armeel yóbbu kooku ndax googu kàttan am na kenn ku nu xam ci kaw suuf ku ko mën a téye déedéet te moo ne day nit ñi duñu gën a dolleeku illa shirkan billahi rabbil alamin gën a bokkaale yàlla lu tax faw ñu jël aw nag wu ñuul rey ko tuur ko sànni ko ca géej ga yàlla jay leen ca seytaane jay leen ca lëndëmal leen ñu jàpp ni moo téye ndox ma Omar ibn al-Khattab dafa yebal Abdullah ibn Amr ibn al-As ni ko demal Misra nga ubbi ko mu ubbi Misra ba noppi Amr ibn al-As bind ab lettre Omar ni ko Misra kat musiba dafay am mooy géej gi at mu jot dañuy seet dëkk bi miis bi ki gën a rafet ci dëkk bi dañ koy solal yérey seet guuta may ko tàbbal ci biir géej gi loolu mooy saraxu géej gi pour géej gi du lor kenn ci at mi at mu jot ndeke misra loolu la ñuy def Omar ibn Xattaab mu ni géej gi de bu yaakaaree loolu at mii tey mu dee Omar jël aw fooy ni bismillah min abdillahi Omar ibn Xattaabi ila nahri niil allahu akbar leetar bi mi ngi bàyyi ko ci jaamab yàlla bi ñuy wax Omar ibn Xattaab jëm ci géej gi ñuy tuddee nahru niil te xam ngeen nahru niil ci soqee ko ci géeji ajana yi la bokk siixaan ak jiixaan ak nahru niil ak furaat ñeent yi yonent yàlla bi ne ne ci géeji ajana ya lañ bàyyi ko sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko leetar mi ngi bàyyi ko ci jaamu yàlla bi ñëw Omar ibn al-Khattab jëm si ci yow géej gi damaa bëgg sama leetar bi bu yegsee ci yow nga ragal yàlla bàyyi jaamu yàlla yi balaa ma laa fekk foofu daal di lem leetar bi ne ko boo demee sànnil ma ko ca géej gi undurul thiqa wal yaqin billah gis nga ñii dañoo yeggoon ci di wax ak ay ay ay ay ay raba ci ay nangam ba mel ni kuy wax ak doomu aadama safina bi saxaaba bi yem saa sallam dikk na ba ci digg àll bi rek nit tëll daje gaynde ponkalum gaynde goo xam ni allah dawude gaynde gi daal di fuktandiku ñëw wut si ko mu ne ko hey man ci saxaaba yent bi laa bokk sallallahu alayhi wa sallam te ndawal yonent bi laa te te soxla yonent bi laay dox boo bëggee jàmm sori ma nee na bi ma waxee loolu mu ne kay léegi di def nii muy day riir mel ni ku may bëgg a mbëkk rek ma arrière mu delluwaat gannaaw mu riiraat ba may mel ni ku may bëgg a mbëkk ma arrièreaat mu dellu ginnaaw mu riiraat mel ni ku may bëgg a mbëkk ma arrière mu dellu ginnaaw nee na mu di ma ko def di ma ko def di ma ko def ba ma teggi jaar ca waneen yoon mu tourné dem ndekete foofu gaynde ga daa bañan mu jaar fa parce que bu ko jaaree moo rami gayndeem fàdd ko mu koy jañax pour mu génn moo tax Omar ibn Xattaab day ñëw ba ci digg àll bi mu ne eh yéen bu kii gaynde yéen laay waxal ñun saxaaba yéen bi dañoo demoon xare tourné amuñu fan fanaan fii la nii fanaan bu dee fii moo nekkoon seen kër nag dem leen ngeen seeti feneen ba ngo ba beneen beneen yoon daal ne saxaaba yi fàkk leen ngeen tëdd allahu akbar gis nga wàkkilu ci yàlla dafay toll foo xam ni maanaam leneen lu dul jaam ak yàlla gis nga yonent yàlla bi ne soo wàccee ci barab jàmbur nga wax a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq luy lore ci yi matt du la ko matt ba kenn nga fay jóge imaamul Bayhaqi nee na fu ma mës a tukki di saako xam-xamu xadiis rek damay ñaan ñaan ba fu ma neex lay tëdd mu ni fu ma neex lay tëdd benn bis nee na mu tëdd ba guddi rek jiit ni ko taweet te xam ngeen ponkali jiit yu ñuul yooyu nee na bi ma njëkk ne bëreet dug ni subhanallah li ma njëkk xalaat mooy damaa fàtte samay azkar tey nee na keroog jooja la ma jiit ma sa fett ci àll bi ma doon dem nee na bi ma nee subhanallah sama xel njëkk a dem mooy te damaa fàtte sama njëkk ñaanuma ñaan boobu ak am solo topp njàngale yenn sa salam kon ki def lii jël géej gi doxale ci ay ay baaraas allahu akbar léegi nag gars yi bu ñu bëggee defar pont bu mel ni pont Ndar ñaata téeméeri milliards ngeen déggoon fan yi ñu ni def nañ ko ca sonn ca loo wuti camion di sëkk fii ak baare fii baare fee suñu borom moom borom kàttan gi dul qudratil baahira jaala baynahuma xijran mahjura kiiraay goo xam ni moo leen baare te kenn du ko gis loolu kawteef suñu borom léegi nag ay mbindeef yàlla nekk ci biir ay jën nga fa lu nga fa marjaana nga fa rab wu nuroog mbaam xóob ci biti sax ma nga ci biir géej gi wa yaxluq ma la taalamun yàlla day bind luñ xamut xoola rek liy génne ci géej gi ci jën par bis lay judduwaat ci ay jën par bis ku leen di màggal fu ñuy dundee ku leen di dundal Suleymaan mënoon nettali borom nguur gu yaagi Suleymaan alayhi salaam dafa xëy benn bis mu ne sunu borom ah sunu borom li ma la ñaan may nga ma ko de may nga ma nguur gu yaa ba jinne yeeg ñëpp maa leen di jox ñuy dund léegi xam nga lan laa bëgg tey mbindee bi dama leen a bëgg a jox añ Souleymane mooy daa bëgg a jox mbindee fii añ mooy ñi mu gouverneur rek daal mi ngi mel ni daal Souleymane ñëw Dakar mu ne mbooleem ku nekk Dakar nag région Dakar yëpp laa maa leen di jox añ yaakaar ngi loolu mën na ne te nguuram gi daa yaatu lool mu soob loolu Souleymane jinne yi tegale ay mban mën naa ni fii ba kaw la jinne yi teg koy mbanay togg rek xam nga jinne ñoom bokku ñu doomu aadama fii ba kaw la rangé la koy mën a di togg di togg di togg ba lekk jot aw rab daal di génnee fee ca def ga wala ci géej ga ñëw ni fuuf affaire bi yëpp te naan Souleymane tooñ nga ma def ndax li ma doon am par bis moo ëpp lii nga togg tey allahu akbar moo tax gis nga mbokk yi suñu borom suñu borom suñu borom kéentaan la wallahi ma qaddarullah xaqa qadri joxuñu yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg daye bi mu yeyoo ni ko Souleymane tooñ nga ma ndax li ma doon am par bis moo ëpp li nga togg pour fas yéene koy jox nit ñi ñëpp waaw kooku li mu doon am par bis fu muy jógee ko fu muy nekk allahu akbar fa tabaraka allahu rabbul alamin suñu borom ni a ilahum ma allah ndax yaakaar ngeen ni am na kenn kuñ war a jaamu ku dut yàlla di ko def buur déedéet suñu borom ni bal li am kay mooy aksaruhum li ëpp ci ñoom laa yaalamu ne dañoo xamul lépp ci nit ñi dañoo xamul waaye ku xam ximmili ko te ku ximmili ko yeewu te ku yeewu gindeeku gindeeku tàbbi àjjana yàlla na yàlla defal sunu borom mu ni amman yujibu l mudarra man nag xam naa tafsir bi nag aaya jii man moom a ci gën a neex man alquran nag moom lépp a neex waaye aaya jii moom allahu akbar amman yujibu l mudarra kan mooy ki nga xam ni bu nit jàqee ba ay pexeem jeex yàlla moo koy wal allahu akbar xam nga yee moom da di aaya yoo xamante nii moom mën nga am foo ca jaar wala boog nga bañ faa jaar wala am ñu ca jaar am waaye gis nga bii moom bii moom boo ko dundee rek nga xam ne huwa alladi yujibu almutarra ida daa am man ana kan mooy ki nga xam ni yujibu almutarra mooy wuyu woote ku jàq ki woote ku tiit ki ida daahu saabu wooyee suñu borom wa yakshifu suu'a mu fangal la la nga xamante ni moom mooy musiba yi nga xamante ni moom nga bëgg suñu borom fangal la borom bi subhanahu wa taala mu ni kan mooy ki nga xam ni mooy yujibu almutarra ida daa yujibu almutarra ida daa mooy wuyu woote aji woote ji waaye su fekkee dafa ñaan yàlla gis nga mbokk yi yàlla dafa def ni li lay wan ni yàlla rek ay yàlla doomu aadama ci tabiaam fitraam buy ñaan nii lay def parce que appareil yu baax yi yàlla monte ci doomu aadama yépp dañoo nangu ni yàllaa ngi fii ci kaw yéefar bi gën a bon bu naan la bàyyi naa la ak yàlla mi ngi nan nii ndax appareil yi waaje yàqu sax te yàqooguñ xam nañu yàllaa ngi fii te kenn ci magi salaf yi mu ni sa doom su dee ba mat a jàng wax te boo nee ko ana yàlla xamut fan la yàlla nekk mu ni seetaatal sa góorgóorlu ci sunna des na xoolal sunu xale yi ñun ay dagg yi saaga la ni jàngee wax gis nga borom bi subhanahu wa taala mooy ki nga xam ni même yéefar bi saa bu jàqee ba pexe jeex sunu borom mu ni ida rakibu fil fulki wa jarayna bihim bi riixin tayiba ngelaw daw lu neex ñuy bànneexoo ko féexlu jaatha riixun aasif ngelaw call meer ak seeg di bërër gaal gi ah wa jaahum almawju min kulli makan duusi géej gi commencé tëll tëll di waaj a xar gaal gi mu wir la ni sa ndomba gii nga takk tey tus na fi moom gis nga mu wir la ni sa béjjën bi nga takk sa ndigg li dara la fi mënut bu dee bàyyi dim nga doon yaakaar moom ma nga ca jéeri de yaa ngi ci géej gi bu dee da nga am keneen koo yaakaar woo ko tey mu ñëw dimbali la déedéet même bu dee yéefar daaw allaha muxlasina lahu diin yàlla rek la ñuy ñaan allahu akbar waaye nag léegi nag bu yàlla xittilee ba noppi nag falamma najjaahum ilal barri idaa hum yushrikuun nga gis gaa yi commencé waat man kay ba géej gi ñu ko ba ma seere waat sama ndonga gi ndomba gi doomu aadama ñàkk jëm dëgg dëgg dëgg te kat loolu du ko waxee ci biir gaal ga de danaan man kay ba ma fa tollee ba ma seere waat kii ni bañ ca tollee ba ma rocc sama kalpe génn fatub sëriñ diw ba daal di koy fóon wallahi léenti bokkoon la ahada asbara ala allah mu ni gisuma ku gën a mën a muñ yàlla ndax liñ koy def kun ko defoon ku ne nga révolte waaye yàlla du nit nag moo tax du révolte moom kenn maanaam dañu koo xam ne sentiment yi ñuy gaar dañuy gaar ba tax muy mer di def lu jotut mbaa lu mu na mut a def déedéet loolu manqué la ku manqué mooy def loolu ku manqué ngay jaay affaire rek mu wan la ni la maa la chefé léegi mu dàq la yàlla du def noonu ndax loolu coxorte la koy fayeeku suñu borom amul lu muy fayantoo ndax du sunu morom bay fayantoog ñun du sunu morom waaye sunu borom la gis nga mbokk yi laaya ji laaya ju mat a taxaw la ju am solo joo xam ni bu ko jullit bi teewluwaatee nafaraat ko dana tax pas-pasam gën a wéraat waaye dana tax mu xam ni kiy faj soxla mooy yàlla rek benn bis imam ahmad mi ngi ci musnad benn bis benn waaye dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ila mata da'u ya rasulallah yow sa diine ji ma dégg ni moom yow dégg naa yaa ngi te xoolal dafa yaru woon nag dégg naa yaa ngi tànqal nit ñi rek ay ay ay yàlla ay yow li ngay woote lan la de ak yonent bi ni mu màggee waaye day oyof parce que day xam ne lii laa def ku xamut la mu ne ko man de maa ngi woote jëme ci yàlla mi nga xam ni saa boo jàqee tiit ak foo man ci nekk sam xel moom lay daj te boo ko ñaanee mu may la àll ba ca ndànd foy foy boo fa nekkoon kenn néew fa boo ñaanee la nga ñaan fekk si la saa boo demee ba yàlla xañ la dara boo ko ñaanee yàlla mën na la koo delloo si su nekkee lu na ma delloo si la mu ne ko ah yow li ngay wax moom neex na di jii diine ba mu gën ngaa yeggal dama ciy dugg léegi bala maa dem man ndax lii moom a arrangé mu ne ko kon jox may ndénkaane bala maa ñibbi mu ne ko ndénkaane yi laa tasubanna ahadan bul xas kenn julit du xaste wala tazhadanna fi lmaaruf bul xeeb lu baax lu mu tuuti tuuti tuuti bu dee lu baax bul ko xeeb même bu dee da ngay dajeeg sa mbokkum julit nuyu ko firi sa kanam mu xam ni yow mi bëgg nga ko loolu tiyaabay sarax la bul ko xeeb même booy root ba sa paan fees nga jukkil ko benn paan doog a dem bul ko xeeb nee na soo paree nag sa tubay jiima seen muy buubu laa bëgg nga yëkkati ko mu ni ko ah wattadir ila nisfi saaqi fa in abayta fa ila alkaabayni wa iyaaka wa isbaal alizaari fa inna isbaal alizaari min almaxiilati wa inna allaha laa yuhibu almaxiila fekk waa jaa ngi yére yaa ngi diree ko mu ni ko sa yére yi laa bëgg nga yëkkati ko ba mu yëgg ci sa digg yeel ba su dee loolu yaakaar ngay day xaw a diis rësal ko tuuti ba mu tiim dojar bi waaye bu mu wàcc dojar mukk jëm suuf ndax loole mi ngi bokk ci rëy rëy lu te yàlla bëggul rëy rëy allahu akbar fii nu toog nu ngi fàttaliku mawdu boo xam ne ci yi nu njëkk a def la bokk muy tabsiru ulil albaab bi ma jaa fi jarri siyaab xippiloog borom bët yi ci xadis yi ñëw ci buubal tubay ak musiba ya ca nekk mat na ñaari kaset yoo xam ni la ca ñëw ci ay xadis yi wér mat na ñeent fukki xadis ak ñett benn bu ca nekk danger buubal tubay ba muy diree ko rek ca lay wax ànd ak ubbi ca bunt bu am solo ñi nga xam ne dañuy wax ne rëy rëy loo tax kon ku ku rëy rëy loo bokkoo ci bëgg a diir mbagg Aboubacar man dama wax di bëgg a diir mbagg Aboubacar nag mooy ñàkkub yar nag mooy ñàkkub yar ndax Omar ibn Xattaab wax ne wallahi atamanna yaa laytani kuntu shaaratan fi sadri abi bakr man dama doon ñaan yàlla yàlla bañ maa def ma nekk Omar ibn Xattaab waaye mu def ma benn kawar saxal ma ci dënn Aboubacar Omar da doon ñaan yàlla def ko kawar saxal ko ci dënn Aboubacar kon yow booy diir mbagg Aboubacar nag loolu mooy ñàkkub yar dëgg nag mooy ñàkkub yar dëgg gis nga saxaabatul kiraam ku mel ni Omar ibn Xattaab boo musaanat bu la déggee ay nit ñi werante na Omar ak Aboubacar ku gën danay jàpp dóor la ba nga bëgg a dee mu ni lii kenn du ko werante nga xamee ne Aboubacar moomu gën kon loolu xadis boobu tegtal la ci wane ni maanaam yonente bi saa sallam dafa jàngale ni yàlla rek la ñuy ñaan amma yujibul muttarra kan mooy ki nga xam ne mooy wuyu ki jaaxle ida daabu saa bu ko wooxee wa yaksifu suua mooy fang musiba yi benn borom xam-xam bu mag day wax wax ju am solo mu ne yaa saaxiba alhammi inna alhamma munfarijun absir bi xayrin fa inna alfarija allahu alyasu yaqtau axyanan bi saaxibihi laa tayasanna fa inna alkaafiya allahu fa in buliita fasiq billahi warda bihi fa inna alladi yakshifu albalwa huwa allahu allahu yuxditu bacda alusri maysaratan laa tajzacanna fa inna alsaanica allahu ما لك غير الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل إنك الله mu ni eey yow mi nekk ci aw tiis ay problème ak bu mu mën a doon mu ni inna alhamma tiis wii nekk ci sa kaw mun farig day dem léegi ngelaw la day wuri pënd la day wuri absir bégal bi xayrin ci tiyaama ji nar a jëw ndax fa inna alfarij allahu ki koy teggi kenn la mooy yàlla mu ni al yasu ñàkk yaakaar wala xaddi day dem ba yàqal nit ki mu weddi saalit laa tay asanna bul saalit de bul xaddi fa inna alkaafi allahu doy na la mooy yàlla dina faj soxla si saabu la yàlla nattoo problème bu manti doon fasiq billahi warda bihi doy lool yàlla nga gërëm ko fa inna alladi yakshifu albalwa huwa allahu kii jeggi jafe-jafe yi kenn la du ñaar koo koy yàlla mu ne yàlla de xamee nañ ko aadab yàgga suppi baadal usri may saratan jafe-jafe ñëw suñu borom suppi ko indi ku yombal ñaata yoon moo tax Omar ibn al-Khattab doon wax ni lan yagliba usrayni yusran ñaari jafe-jafe mënuñoo not benn yomb yomb mënta nekk mooy fa inna ma al usri yusran inna ma al usri yusran jafe-jafe bu ñëw yombal topp jot jafe-jafe bu ñëwaat yombal topp jot mu ni ñaari jafe-jafe bu ñu doon bëreeg benn yombal mënuñu koo daan kon moo lay wan ni fu jafe-jafe ñëwee rek yombal nga ca gannaaw mu ni laa tajza'anna bul xaddi fa inna saania ki yor def def yi huwa allahu mooy yàlla mu ni wallahi ma laka gayra allahi min ahad mu ni yow xanaa xamoo ni amoo keneen ku dit yàlla ku la mën a dimbali fa xasbuka allahu dayoon yàlla nga ne ko ci lan mu ni fii kullin ci loo mën a nekk laka allahu xamal ni yàlla doy na la subhanahu wa taala mbokk yi